Baye Niass rek la leen di waxtaanee lay wala muy waxtaanee euh, Cheikhu tiijaan yi wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. loolu la ñuy jàngale Medina moo tax loolu rek la ñuy tari wolof Njaay nee na bitéel la mu def la saañ ba di xeeñ ca demudi saadix nag keroog aljuma bi weesu mm-hmm. daa demoon ca inauguration jumaa yi Serigne Cheikh Saliou ca Touba moom moo waral teewu lool ñu bari doon ma message naan ma ana ceddo ma ne leen mu ngi ci yoon bi di ñëw bi mu yegsee xam naa ni kawate moo tax mm-hmm. ak lekk gu bëri gu mu def Touba moo tax mënut a woon a yegsi maa ngi lay siyaar sans waaj. maa ngi lay delloo siyaar bu baax. doon def ak coono maa ngi lay siyaar. nag euh, maa ngi lay siyaar bu baax alaaj. alhamdulilah sunu borom de daa wax ne euh, jumaa yi jàkka yi. Mhm. moom néegam la. Mhm. Euh, sëñ Touba itam jeex gi mu jeex ci boromam moo tax mu ne moom ay buntam yépp néegi yàlla la. wa anal masaajida lillah oh. sëñ Tuubaa wax ne wajxal buyuti kullaha masajida wallah euh, kon yàlla moom yi nga xam ni moo sottal jumaa yi mbakke ji te jaarale ko ci loxo Serigne Cheikh mbakke moom Serigne Saaliw euh, nu ngi koy sant tey ndokkale Serigne Cheikh mi yàlla jaarale liggéey bi ci moom muy jumaa joo xam ne pakk bi bi ko def buñ la ci fayeeku woon fii may wax yow téeméeri milliard nga xam ne jar na Mhm. ndax fi jamono jëm amul pàkk bu ko gën a placé diggante Touba ak Mbàkke ak Daaru Salaam mu ne moom jaay na ko yàlla ba noppi defaral ko fa néeg boo xam ne tabaarakallaahu rafet na stade municipal la woon mhm. mu def ko jumaa ci rond central bi la tabax jumaa joo xam ne dafa dafa ron xam nga ron central bi moom fa la lépp daan tàmbalee mhm. foofa la samp jumaa ji macha allah ne bu ko ci kenn tudd nag nañ xam ne yàllaa def liggéey boobu waaye noo koy sant ñun njabootuk sëriñ Saaliw di ko sagoo di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaan yàlla mu fayal nu soxna Xadi Mbàkke way juram wa ndax bennam bi wecc na ay junni junni di ñaanal sëriñ Saaliwu Mbàkke sunu borom itam gën koo dolli ay leer fa mu ne gën koo dolli mbégte ci taxawaayu doomam ju tedd ji Pape Sidi maa ngi nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp di bég ci ñoom mm-hmm. kii sama goro la <laughs> ñoom samay mbokki rakk lañu mari fay mi topp ci man. ndeysaan eh, ñoom ñoo bokk kilifa. ci mhm. wàllu tariqa. waaw kon am naa te lool tey. bu baax waaw waaw. Mhm. am na benn oustaz boo xam ne moom ñu ngi koy audio rek. Mhm. bëgguma tudd benn tur ngeen xam ne Aziz laay wax. <laughs> rakki maa ngi lay nuyu. <laughs> Aïdara Karara. Pape maa ngi lay ziar damay am mbégte ak contentement di bokk ak yéen plateau encore plus mën naa ni c'est la première fois ñu bokk plateau yaag sama dam bu jongoma bi macha allah ak euh, Khadija ak suñu sang yi toog mhm. maa ngi nuyu waa kër Cheikh al Islam yëpp et puis maa ngi nuyu waa Mauritanie di leen baalu àq bu baax a baax ci koor bi te di leen wax yàlla nañu fekkee ko ay at yu bëree bëri incha mhm. allahu rabbi ah Racky nag moom tey lay door a ñëw ci encore plus mhm. macha allah waxtaan wi dina dina xumb dina neex kon yow xam nga ne yow laay mu jënd wi ah Ndiaye xam nga loolu Oustaz Abdoul Aziz Doucouré laay nuyu ba pare door a ñëw si yow parce que man ak yow ñu ñoo bokk équipe daal xam nga chaque jour ñun la lay bi di jàpp fii di ñu di ñu di ñu bërëg <laughs> tey suñ gan yi rek lay nuyu euh, maam Abdoul Aziz Doucouré ñu ngi lay siyaaraat beneen yoon. maa ngi lay delloo ziar Pape Sidi di nuyu képp koo xamante ni rek yaa ngi ànd ak ñun ci émission bi di encore plus. di ñaan yàlla sunu jaamu gi ñu nekkee yàlla na ko nangu ca na mu toll mhm. ndax ñun ni ñu toll rek noonu lañ koy jaamoo waaye moom ñu ñaan ko mu nangul ñu ca na mu toll bi jaayi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi sallam ñaanal bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni ñoom la ñu toogal euh, nuyu bu baax euh, murid saadix ñaanal ko yaan yàlla defal ko tawfiq bi jaay sayyidina muhammad nuyu sama soppe bi xaj maam seen nga xam ni comme ni mu ko waxee léegi léeg ñu weccante ay kàddu ci yenn heure yi. Euh, ndax euh, demkat yi tànt yi daam am heure yu ñuy wax. ñoom euh, bu ñëpp tëddee heure yooyu la ñuy nekk ci ci ligne bi di waxtaan. wallaay wallaay. yàlla na yàlla fay ko yiw ak sang yi mu àndal. nuyu soxna yu tedd yi nga xamante ni ñoom la ñu toogal. ñaanal leen yàlla na yàlla defal leen tawféex ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñaanal bu baax a baax sunu benn wóllëre. bu nekk fële ca Mauritanie muy Thierno Hamidou mhm. di ko wax incha allahu taala comme ni ñu ko waxee yàlla ñu yàlla defal euh, kartan ba ñu mottali sunu kàddu ba yàlla indi ñu foofu bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy waajal ak ñu ñu ko seqal ñëpp Thierno Hamidou ñu ñaanal ko yàlla defal ko tawfiq mhm. bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Pape Sidi di la nuyu bu baax di la sant ci kurus gi wallaay ñaan yàlla yal na yàlla fay nga bëri ay course lool ndax àdduna bi wax dëgg yàlla ba léegi fu nekk ni rek ma fay wooye naa ma santal ma Pape Sidi ndax lim def ñun ñëpp la ko defal ndax Pape Sidi bu jëlee course ku mel noonu décoré la ko ngir yonent bi ñun ñëpp la ko defal Pape Sidi ñu ngi lay gërëm allahu akbar allahu akbar Adja est-ce que xam nga ni ceddo bii. ak hmm. Oustaz Ablaye Gueye ak Aziz Doucouré ñoom ay ay groupe la. ah bon su pont Colobane ba doon fréquenté ñoom. <laughs> xanaa <laughs> maa ngi lay nuyu Khadija. maa ngi lay fay Pape euh, di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp c'est toujours un plaisir de d'être là pour euh, bokk ci encore plus di nuyu ami chers téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu itam euh, particulièrement comme tey dañuy waxtaanee euh, Mame Mbaye Niass di ko may Zakira bu may bay Mamour Insa di ko may itam euh, sama yaay sama xarit ay Aïssatou nekk ci service commercial bu 2STV di ko may itam prince borom Dubaï nekk ci sët ci Maolana Cheikh Ibrahima Niass di ko may itam toute la communauté musulmane ah particulièrement aussi waa Kaolack di ko di ñaan yàlla lépp lu ñu fi waxtaanee rek yàlla na nekk yiw Pape axis ak gars yi mu àndal maa ngi ñëw ci yéen waaye dama am euh, benn surprise boo xam ne tey dama leen ko bëgg a bàyyil ba waxtu surprise bi jot ma présenter leen ko en tout cas xam leen ne daal képp ku bëgg Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim ñas sa xol dina sedd lool ci li ñuy def bu ñu paree nag artist bi ma indi Mbis Baax Maîtrisard la tudd mais on va en parler dans quelques instants parce que dafa am benn affaire boo xam ne. c'est pas tous les jours qu'on le voit. dinañ ko def comme émission bi dañu ne dañuy waxtaanee ak euh, li nga xam ne moom moo di actualité euh, Maodo Diop mu ngi may wax ne ma oustaz euh, <laughs> non moom cruise bi yaa ngi ciy indi ay problème fi mu ne nii Maodo Diop waa Nescafé ñoom kii lañ sponsorisé ñoom kii oustaz Tafsir Abdourahmane Gueye ak Serif Mamine nee na ñoo ñu ëpp bës. te ñoo ñaari paa yooyu Messi ak Ronaldo lañ tuddee seen bopp non je les adore ces la dem mu toj nañ Pikine wax dëgg yàlla seetaan naa jotaay bi ba mu jeex neexoon na lool et puis amoon na actualité ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, dafa am loo xam ne ay point d'actualité la à chaque fois bu ñu tàmbalee émission bi dañu koy revisiter waat ñi nekk ci plateau bi ku ci bëgg a joxe sa xalaat nga joxe ci sa xalaat de manière très rapide comme ça ñu door a ci leneen tey ponk actualité yi ñuy njëkk waxtaanee bokk na ci Euh, feetu 4 avril mooy feetu indépendance bu Sénégal gouvernement bu Sénégal dafa invité kujje gi maanaam opposition bi maanaam ñi ci gën a ràññeeku daal Yewwi Askan Wi ak soxna Aminata Touré ñu naan ko Mimi ñu lànk ne du ñu dem ñu euh, bu fekkee am na waaw ñu xool euh, li nga xam ne moom moo di communiqué bu Yewwi Askan Wi toftal ci mbind mi soxna Mimi Touré lii moom mooy communiqué bi euh, Yewwi Askan Wi xaatim di yëg lu ne jot nañ ko rafet lu nañ invitation bi ñu leen invité mhm. te ñu ngi delloo njukkër armée bi ak réew mi ci moom gi mu moom boppam ci da euh, bés bii waaye daal li ñu leen invité duñ ca dem ndax dañoo jàpp ne tànki jàmm wala dox jàmm nguur gi da ko defagut jëm ci opposition bi pour calme am loolu la ñu jàpp moom la ñu xaatim ci communiqué bi soxna Aminata Touré moom it xaatim euh, euh, ab euh, bataaxal def ko ci internet bi ndax jumtuwaay la goo xam ne ñu bari fa la ñuy jaare di wax seen xalaat ne maa ngi lank ci woote gi ci invitation biñ ma invité ci anam bi gën a yar bi gën a ànd ak yar poliment ci sama xalaatu bopp à titre personnel maa ngi laaj ñu delloowaat ma sama ndombol tànku député bi ñu ma foqati te ki nga xam ne moo di président Macky Sall def ko te dëppoowul ak yoon waaye invitation boobu daal moom nee na du ca dem lii nag mooy euh, ndax am ngeen ci point de vue est-ce que qu'est-ce que vous en pensez euh, Khadija Ceddo euh, mm-hmm. Raki Khadija Abdoulaziz Mam Seet ku ci xalaat dara rek mun naa wax ma jox ko mu mu parole mu xalaat yéen ñi seetaan aussi si vous si vous pensez bu ngeen ci xalaatee dara mën ngeen ko wax on va lire incha allah ensemble lan ngeen ci xalaat kan mooy njëkk wax ah yéen nu ngeen di régalé nii. <laughs> Armé voilà tu lèves la main je te la parole <laughs> Khadija madame Fall. du ragal sax dañ doon bàyyi ñeneen ñi ñëkk wax. xam nga dañoo yaru si plateau bi. donc dañuy dégluwante pour xool. <laughs> je pense que nag man actuellement euh, Yewwi askat Wi bu ñu demoon wuy ji invitation président de la République man ci la may jaaxal. parce que quand même c'est vrai que ni euh, war nañ xool naka la ñuy def ba tension politique bi gën a apaisé bi. Euh, plus particulièrement mais jamono ji euh, jokkalante gi dem beeg jikkalante bi nga xam ne moom moo am diggante nguur gi ak kujje politique bi xëñ na ça aurait été d'une grandeur parce que armée bi tamit moom moo moom moo xewle ñu demoon wuy ji mais gisoon nañ ni invitation bi nga xam ne président Macky Sall ay weer ci ginnaaw defoon na ko gannaaw gi ba ñu gagné li nga xam ne mooy coupe coupe coupe d'Afrique bi invité woon na ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci kujje politique bi yëpp ñu ñëw mais après gis nañ ne euh, décortiqué bi nga xam ne nit ñi am nañ ko ci ginnaaw nee nañ ba Macky Sall waree dem jëli coupe bi dafa bàyyi euh, opposant politique mi bàyyi leen ci bâche bi moom dong mu dem donc moom moment de gloire boobu bugg ko woon partagé ak ak kenn donc loolu am na ay lecture yu bëri yoo xam ne mhm. découlé woon na ci donc bi peut-être grandeur woon na am ci kujje politique mais boo liiree seen communiqué ñaari bi waaye yeewu askan wi ak Mimi Touré dafa mel ni am na ay condition yoo xam ne sous-entendre nañ ko ci seen communiqué waaye yeewu askan bi ñoom lu ñu xam ne moom mooy Macky ba tey defagul lenn loo xam ne mën na participer ci apaisement climat euh, politique bi wala tension sociale bi. Mhm. Mimi Touré moom li mu xam ne moom mooy ñu delloo ko. li nga xam ne moom mooy euh, mandaawam ca assemblée nationale. donc euh, tey peut-être sur le plan politique na bu président tegoon ay jéego yoo xam ne. Euh, sur le plan politique dina dina mën a concret peut-être ñoom dinañ dem wujj comme par exemple mu def sortie mhm. annoncé ni que le troisième mandat bi nga xam ne moom la ñuy nit ñu di ngawtu ngawtee man du ma ci bokk loolu xëy na bu ko defoon peut-être dina apaiser gën a apaiser tension sociale te dina faciliter ñiy dem wuy ji seen seen invitation mais man je pense que ne bu ñu wuy ji woon en tout cas ci contexte bi ci la may gën a jaaxal que que autre chose. Euh, Dou Barwaab qui dit euh, dem rey la jaale la ils ont bien de décliner. sur la page Facebook de Pape Sidi Fall tout en majuscule euh, Raki oui Raki alors euh, Pape pour kaawu Mimi xam naa liñ ko jëlee ci postam aussi war na koo metti mhm. ba loolu war na tax mu bañ a dem wuy ji mais quant à kaawu opposant yi ñoom bu ñu demee wuy ji dina bizarre torop parce que mhm. récemment arrêté nañu ay 400 jeunes yoo xamante ne ni ñoom lañ loon di leen manifester donc tey jii ni bu ñu leen gisee ñooñu ñoo ngi ci kaso bi jugé wuñ leen ñoo ngi leen fa teye ñu gis opposant bi dem ànd ak nguur gi di fête 4 avril dina dina bizarre. mais 4 avril c'est une fête nationale mais aussi est-ce que est-ce que gisoo ni tamit euh, Ousmane Sonko dafa bëgg a dem fête ji 4 avril fële ca Ziguinchor parce que moom ah, mooy. seen maire en tant que maire c'est lui qui doit présider. c'est lui qui doit présider. donc à tout moment mën na dem foofu noonu comme quant à de Thiès bi aussi. mën na fa dem donc ñaar mën naa ne Ousmane Sonko mooy seen seen seen seen leader. moo mhm. nekk ci kanam donc bu demee ñeneen ñi bu ñu demee sax. seen seen dem mën na mën na bañ a am njëriñ. Mm-hmm. sama gis-gis bu gàtt la mm-hmm. donc. Euh, c'est domage dommage euh, Khadija Patra. jigéen ñi de ñoom ñu ngay wax seen xalaat moom. <laughs> bon yéen bàyyi ngeen toog jàpp seen jàmm. <laughs> est-ce que duñu def honneur aux dames maa ngi lay ziar mais. arrête de ma coller. Ah, dañ def nee nañ dañ def honneur aux dames ñu may ñu ba pare ñu <laughs> wax. Kova je vais t'attraper. alors mos gi moom ko def oui vas-y. moi je vais rejoindre li ñu wax euh, ñoom ñaar ñëpp. Mhm. comme Khadija li mu wax côté grandeur bi parce que ñoom tey li ñuy xeex yëpp c'est pour la nation. alors que 4 avril c'est une fête euh, c'est une fête de la nation fête suñu fête indépendance la tey moi je trouve que voilà mënoon nañu am grandeur mettre. Euh, seen ay bis bi de côté euh, dem wuy ji ne serait-ce que juste pour la nation mm. mais aussi ci ginnaaw itam euh, dafa am xarija kii bu mu def léegi c'est très important euh, son excellence monsieur Macky bu defoon benn sorti wala bu mm. defoon sax benn médiation dox tànku jàmm peut-être wane ni bëgg na jàmm avant kii bi di ñëw xëy na doon nañ leen gën a yombal seen dem ci 4 avril bi mm-hmm. macha mm-hmm. yaa y'a Kova qui dit émission bu baax bi merci beaucoup mon ami Kova donc mos bi moom ça va venir ne t'inquiète surtout pas je vais gérer euh, Ba Thierno Seydou euh, Ndingelane qui dit ils ont bien raison de décliner l'invitation Fara Capo daal invitation pour l'an Lamine Faye qui dit peau noire masque blanc Macky fait du saupoudrage Niass Dia il y a des enfants sénégalais qui sont tués dans les manifestations pour euh, la faire vivre, euh, pour faire vivre notre démocratie. Hommage à eux, je me demande une question. Qu'est-ce euh, est-ce qu'on est indépendant et comment Je suis parfaitement d'accord avec la décision de Yewi Askanui de la part de Al-Fudjiu euh, Mboup euh, de Yao. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition des, dé, des, euh, des détenus politiques. bàcc le barham 4 avril 4 <laughs> poissons d'avril la woon non <laughs> bàyyi loolu 4 avril. non li mu wax dëgg la am na ku ma gis mu ne invitation bi en fait poisson d'avril la lañ doon bàyyi bañ opposant yi ba ñu ñëw ba ci bunt ba ñooy leen dellu leen seen invitation yi c'est faux mm. pour te dire comment la tension elle est vive en fait actuellement. Euh, ba Thierno Sadou euh, Ngelan euh, ne Pape Sidi waxal sa gars yi j'ai toujours pas reçu Françoise yaa ngi dégg depuis hier. ñu ngi may wax yow yaa ko wax ne ko ci internet bi laa jëlee mu ne moo tax yónnee wu leen oh, nee naa ko jëlewu ma kenn ci internet bi keroog toutes les personnes qui ont reçu de l'argent mm -hmm. on les a ils ont appelé et on leur a donné malheureusement on n'avait pas pris la peine de donner de l'argent via le net et malheureusement et les photos que tu avais qu'on avait demandé non non ça on ne l'avait pas donné okay. donc les les numéros qui sont au niveau de la régie c'est des numéros qui ont été euh, c'est des personnes qui ont appelé donc je le dis ici à la télé dégg nañ ko Françoise waaw kay euh, Mame Abdoul Aziz non dama ne waaw xanaa mbir mi du invitation. ah. man pour ma invitation pour man du force di. Mhm. Eh waaw invitation mais. moo tax ñu c'est sacralité xam nga ku ñu invité. da ngay bëgg a dem dem mbaa nga mën a dem dem. soo bëggut a dem mën ngaa bañ a dem soo mënta dem mën ngaa bañ a dem. lenn nag laa xam ni moom xaw moom a ciy jaaxal mooy tey bu fekkente ni 4 avril dañ ni fête la boo xamante ni pour. pour ci lañu ci la ñu jot suñu. indépendance suñu independance mm-hmm. man Sénégal est-ce que am na indépendance sax. <laughs> am nañ kay. <laughs> parce que man dama yaakaar ni indépendance Sénégal moom am te bu ko sa loxo laal la la daanaka la yàlla xam doy na mais tey jii suñ leen ci woowee tamit waroon nañu man ci sama xalaat bu gàtt bu nu mënta dem ñoom ñëpp sax wala seen leader yi mënuñu dem. Mm-hmm. mënoon nañu wut benn délégation bu leen teewal rek assister wane nii woo nañ leen parce que tamit jàmm ñaari côté ñoo koy wut. même bu fekkee dafa am côté bu ñu koy séentoo mais ñaar ñi ko seq ñëpp ñoom ñaan ñëpp a war a dox jàmm maanaam ki ñuy séentu ni moo war a def lii moo war a def lii moom su xëyee ni dama am feet gi ñun ñëpp ko bokk kaay leen ñu bokk feetu mhm. xam nga du feetam moom bu doon yëfi boppam wala yëfi parteem ci la woote bu boobaa ñu invité leen sañ nañ bañ a dem mais man je crois que ni bu fekkente ni lu àdduna bi lu Sénégal gépp bokk la ñun ñëpp ñu taxaw ni Sénégal moo moo maanaam moom moo nu ñor ci li nuy xeex cest à bu wootee invitation ci dañu war a ñëw ngir feetu feet gi du dara lu dul nañ àndandoo ñun ñëpp feete suñu bis bi ñu jox suñu biñ bi ñu moom biñ nee ñu moom ngeen seen bopp man pour man même bu ñu mënta dem ñoom lider yi war nañ am benn délégation boo xamante ni mën nañ ko wut mu dem teewal leen pour pour wane ni rek maanaam feet gi ñun ñëpp ñoo ko bokk après bu bu feet gi jeexee ci six heures gi bu leen neexee ñu takkaat te defaat conférence de presse nekkaat ca lañ nekkoon. mais du du du du du tontu seen gatsa gatsa gi ñu woote de. <laughs> ñu xam nga El Hadj Daara waaw xam nga xam man man baat bi. Mm. wallaay su ma ko déggee damay ruus. billaay barke sëñ Babacar damay ruus xam nga lu tax. dañu warul woon egg ci niveau bii. Mm-hmm. parce que réew imaginel tey yaa ngi wax sànq dañu war a waxtaane mag mu toll ni Mawlana Cheikh al Islam léegi kooku pour ñu waxtaanee ko lan la lan la def bañ koy waxtaanee maanaam dafa am lu mu daj ci réew mi am lu mu sonn pour installer ko fi moog ñi mel ni moom sonn ci réew mi ba heure bii mais am na loo xamante ni ay valeur la yoo xam ne ñun ñoo war a fexe ba valeur yooyu du ñu ko perte xam nga tey ji gis nga même xale bi nga mën ëpp ko doole am na boo ko am na loo xamante ni boo ko ko yenee buy wëlbatiku sa kaw la jëm muus boo ko tëjoog moom ci néeg bu mbëkkee mbëkk amul fu mu jàll day jël ay armam song la xëy na peut-être loolu am na am na ñoo xamante ni fi ñu toll maanaam mënatunoo dellu ginnaaw parce que am na lu leen naqari torop ba sës nañ ci miir bi mhm. mais nag ak lu sës sës ci miir bi gis nga bu ñu doon rayante te li nu bëgg déet ba tax ñuy rayante yàlla namm ko du am mukk bu ñu tëddoon ci sunu néeg yi nelaw te li ñu bëgg yàlla namm ko day am mais lu mu mën a doon li nga war a calculer mooy après bu amee ba pare mm-hmm. est que li nga woote nii tey boo ko wootee ba jot li nga bëgg a jot ëllëg du am ñeneen ñu génn fee wooteel la lu gën a garaaw lii mm-hmm. maa ngi ñëwaat ci euh, yéen ci plateau bi am na ñu nekk ci internet bi ñu joxe seen xalaat El Hadji Dame Ndaw euh, qui travaille dans Good Morning qui di invité ginaar jouru tam xarit la Macky def <laughs> moo Touré nee na tey moom émission bi dana neex lool Pape Sidi du yomb xam naa ni waxtaan wi maam seet bëgg waxtaan la lay lay lay ceddo am nañu lay nuyu euh, Assane kan nee na ils ont tort car c'est la fête de la nation vive le Sénégal Tim bonsoir au fait ñi ngeen invité xam-xam rek la ñuy waxtaanee Baye Niass man je suis animateur à Rewmi FM euh, Ba Thierno Seydou Ngeleen c'est un appel en direct voilà non j'ai j'ai on a géré ton problème toi <laughs> euh, Boubacar Sadikh Khoulé euh, allait faire alors le saint en prison injustement pour certains et ce serait hypocrite d'autant plus que les deux camps ne sont pas en bons termes Baye al Baye Malé Mboup nous a, nous avons une opposition pas du tout républicaine rek elle mélange tout dans la manipulation tout est dans la manipulation d'après ses propos li mu xalaat euh, peine PDG au PMS fête de l'indépendance au moment où des Sénégalais sont enchaînés avec des bracelets électroniques comme au temps de l'esclavage qui est indépendant c'est pas le peuple en tout cas Ahmed Fall non je ne suis pas d'accord si invitation bi parce que yéene wuñu jàmm bon les gens sont en train de donner leur opinion et c'est ça c'est moi je vous avais dit donnez votre opinion qui veut prendre la parole entre euh, Thieddo et Thieddo entre Thieddo <laughs> sur l'invitation concrètement tu en penses quoi lan nga ci xalaat bon euh, Pape Sidi invitation après am na lu jiitu invitation xam nga il faut que que que nous revenons à à nos valeurs républicaines d'abord mhm. c'est un préalable mooy maanaam li nga xam ne moom la ñuy feete gannaaw suba mooy notre accession à la souveraineté international nous avons un espace aérien nous avons un territoire nous avons des côtes nous avons un État nous avons une constitution à respecter nous avons <coughs> des pouvoirs déconcentrés décentralisés et cetera donc loolu ku yàlla dogal mu nekk ci sa loxo la marche de la république yow yaa ko war a jiite ci lépp loo xam ne dafa conforme ak constitution bi kon ba ci kujje gi seen cër yaa leen ko war a jox ba mu mat sëkk loolu il faut mu dellu siwaat faw ñu xam ne kujje dafa bokk ci doxinu état bi dañ ko nangu ci constitution bi mhm. léegi nag loolu jàpp naa ne nekkul lu war a jur ay noonoo ci sénégalais yi nekkul lu war a jur fitna mhm. parce que dañ ñun ñëpp dañ juboo ne ñii ñoo fi ne di di politique bu ñu waree tànn kenn ci ñoom bu fekkee fukk lañu bu juróom-benn yenee diw la ñu jiital kooku mooy c'est le peuple qui choisit souverainement son président. Mm-hmm. mais le reste du peuple malgré que mm, président Macky Sall mooy seen président dañuy accepte aussi que malgré sa ils ont un autre choix à proposer loolu lañ bëgg. buñ mm-hmm. sañoon du nekk président Macky Sall keneen lay nekk. Mm-hmm. loolu nag aussi day nekk droit boo xam ne dañ leen koy respecter ak ak ak yelleef ya mu àndal. loolu mooy li war am mais jékki-jékki rek euh, noonoo ay at jékki-jékki rek ne la kaay añ. Ah, mais il y a il y a une première fois à tout ah. waaw non on est lépp loo gis ci àdduna il faut mu écoute on a eu des adversités politiques. très intenses dans ce pays là. waaw c'est vrai. mais dañu agsi foo xam ne on n'est plus au stade d'adversité politique les gens sont presque des ennemis dans le même pays avec les mêmes couleurs et les mêmes valeurs mm-hmm. donc il faut que ñu reculer d'un cran taxaw. ne lii adversité la ku mën a jiite Sénégal ak ku ko jiite itam c'est pour le bien de la nation. bien entendu donc ces gens-là ne doivent pas des ennemis dañu war a góorgóorlu ci ñaari côté yépp. Mhm. kenn ku ne lay sa àq nga jël ko ba mët sëkk. Mhm. te ñu bàyyi agression yi. Mhm. deltu ginnaaw ci baat bi Khadija wax. nañu def yaasa yaasa wala maafe maafe wala ndambe ndambe te bàyyi yeneen yi. dëgg la bu boobaa bu waxee baat bi bés dana ñëw ñu dagg ko. non du ma ko wax ceddoo <laughs> ko dëgg waaw maam maam waaw waaw lii moom wax dëgg yàlla képp kuy sénégalais. Mm-hmm. am nga ci kàddu. Mm-hmm. ndaxte ñun Sénégal lañ am mënuñu koo génn. diine jii ñuy waxtaanee lenn rek moo mën a tax ñu continuer di ko waxtaanee mooy jàmm di am ci réew mi. Mm-hmm. te jàmm nag. kenn rek du ko ut jàmm dañ koy utandoo mm-hmm. gis nga nit lu mu la mere mere su la signalé pour juboo war nga koo nangu mm-hmm. même bu lay nax Ousseynou na Ali mm-hmm. Ousseynou dañ koo invité xuruj ko mais demoon na te gàttanu nañ ko ci yoon bi sax ne ko fi nga jëm boo demee dañ lay rey mais gis nga parti di su ma la invité man ci jàmm te xamuñ ñu woon ñun ñaar ci jàmm léegi yow boo ñëwul rek yaa sàkkuwul jàmm ji hmm. ñëwal te foo xam ne boo fa demee da nga fa fekk say soppe ñoom fañ jëm fañ leen fañ leen invité ñoom kujje gii fa leen président bi invité bu ñu fa demee dañ fa fekk koo xam ne ci ñoom la far am na ku ne ci biir gouvernement bi te ci ñoom la far foo xam ne nag boo fa demee récupéré waale fa ay xol solo sa yére bu rafet nga dem am na koo xam ne ci comportement toogin ci lay dévier fa mu nekkoon ñëw fekk si la mm-hmm. te loolu bu ñu ko defee ñun fa man ñun jubawoo di wuñ ji politiciens yi rek la ñoom ñoo ñoo ñu jubóole de ñoom rek ñoo ñu wutale mais jubóodi wuñ mm. parce que tey ñoom bu buñ buñ buñ ñenn ñi buñ àndee far ci kii xool mën naa bokk ak yow benn leader tey bu subaa nga am beneen leader man duma ko am mm. loolu mooy tax ñun ñaar fu ñu dajee di sànni Dakar te démb ñoo bokkoon fu ñu ne te cas bi nga wax noonu mooy Mimi Touré moomu keroog bi ma ko séenee ci kaw pëjëm bi muy accolade Ousmane Sonko keroog laa ne ñii ku yeboo tey ci ñoom <laughs> parce que ñoom it neen wuute wuñ gis nga ñii di xeex ëllëg ñooy bokk gouvernement bi seddoo kenn ku nekk jël sa wàll mm-hmm. loolu maa la ko wax man d' accord naa gars yi dem mm-hmm. d' accord naa ñu dem wuyu ji ko bu leen xooree ci woote bi ñu jël ñu ñàkkee ci ay ay nit ñu leen bëggoon su leen defalee teraanga ci woote bi ñu xam ne kii kat bëgg na jàmm ñu ko commencé dox jàmm comme démb dañoo yaakaaroon ne doo dox jàmm tey nag mu ngi jéem a dox jàmm ñu fekk si la rek mhm. li yonente boo xoon af suu salaamu baynakum seen biir su ma la waxee salaamaaleykum nag nga waxoo ma waaleykum salaam waaleykum salaam ah su boobaa jàmm du am <coughs> ala kulli haal man de loolu moo ci sama moo ci xalaatam Baye Niass mi ñuy waxtaanee nii gis naa ko ci vidéo fête de l'indépendance mhm. mu jógee Kaolack ñëw Dakar mhm. te xam nga ne bu doon da da day day sëriñ sëriñ day toog rek ne sëriñ la foofu du ma fa dem politicien yee wala foofu waaye nag réew mi la mm-hmm. indépendance la réew mi la mm-hmm. euh, c'est c'est très intéressant maam seet li mu wax ndax ñu bëri dañu jàpp ne opposition bi ñoo kon sàkku jàmm ndax c'est pas Macky Sall ou APR ou Benno Bokk Yaakaar qui a invité ah ça c'est euh, la République par le biais du ministère de l'Intérieur qui a envoyé les invitations mais opposition bi aussi dafa am benn combat boo xam ne dafa tàmbali maam mooy combat opinion internationale bi bu ñu demoon xam naa dañuy ragal dem toog ca jotaay ba ñu ne kon ah kon jàmm. am dellu si waat na président boole na ñëpp uufaat. kon wàccee garde yi la ñuy waaw wàccee garde yi fi mu ne di daal. loo ci mënti wax mooy. mais individuellement je pense que ku ci nekk ci ñoom ci opposition bi ak ci euh, pouvoir bi il faut la nation c'est fait par les hommes. ñun ñooy def réew mi mu nekk réew. Euh, yéen ñi nekk ci internet bi tey joxe seen xalaat maa ngi gis euh, Aris waaw yow di nga ñëw dama laa nuyoogul moo tax dama laa ñëweegul a jox léegi dama lay garder yow ci sama surprise yi nga bokk bu yàq maa ngi ñëw ci yow dafa am benn crise boo xam ne amati na ci Afrique Afrique bu xonq bi am der bu weex ñun dey wax dëgg yàlla raciste ñu ndax suñu bopp lañ leen jàppee mm-hmm. mais Kayit Saye dafa toog ba mu yàgg mu ne nit ñu ñuul ñi ñoo tax waa dëkkam am ay jafe-jafe njëg yi yokk ni mu yokkee fépp ci àdduna bi moom président tunisien boobu lajj gi mu lajj ci problème yi guerru Ukraine bi ak Covid bi indi moo tax mu jiiñ ko nit ñu ñuul ñi ba loolu amee nag mu tàmbalee indi benn genre chasse à l'homme maanaam mel ne ñuy rëbb nit ñu ñuul ñi hmm. waa Guinée ngi jëli seen i doom waa Mali ngi jëli seen i doom yeneen dëkki Afrique yi nga xam ne am nañ fay doom yëpp ñu ngi jëli waaye dafa am benn couple jëkkër jabar ak seen ñaari doom yu bëggoon a mucc ñi ngeen gis ca xoqatal bañ leen di xoqatal Tunisie jël gaal ne dañuy daw dugg Espagne oh. gaal ga suux ñoom ñëpp ñu ñàkk seen bakkan ñi ngeen di seen ñii ñëpp seen bakkan dafa rot ci gaal li ko indi gaal yi moom mu ngi rey ndax ku naan mbëkk mi amatul wala immigration clandestine jeex na ci réew mi moom mooy xamoo li xew Sénégal. mu ngi am ba léegi ndax foofa Tunisie bëri na fa ay africains yu fa nekk passeur la ñuy xaar demuñ fa pour toog fa dañuy xaar ku leen jéggiloo mais wax ji mu wax président boobu ak ñàkk jëli gu ñu ñàkk jëli ñun suñu ay doom ndax 64 personnes rek ñoom la ñu jëlee ji ca Tunisie indi leen fii moom moo jur tey ñaar ñii ngeen di siin seen ñu nekk jëkkër ak jabar. xale bu góor boobu ak xale bu jigéen boobu ñàkk seen bakkan ci gaal gu toj muy lu mitti ci askanu Sénégal ñu ngi leen di ñaanal yàlla xare leen aljana yi gën a kawe waaye ça mérite quand même réflexion daw na yaram torop j'ai donné la parole tout à l'heure aux dames bii maa ngi ciy laaj Mame Abdoul Aziz li métti na de ah dëgg yàlla de doy na waar torop xam nga Pape Euh, doomu aadama bu fekkente ni amul xam-xam euh, lu ko maanaam lu ko juumloo day yomb te maanaam ñàkk xam-xam mi ngi yem ci der tax nga bañ nit maanaam couleur wala mm-hmm. ñàkk xam-xam yem parce que yàlla moo ñu jàngal ni yéen ñëpp maa leen bind ngeen soqee ko ci ñaari nit muy aadama ak xawaa mm-hmm. yàlla moo ñu jàng moo wax yonent bi ni ko dinaa leen def ay giir dinaa leen def ay kuréel waaye dinaa leen def ay ay couleur yu wuute maanaam ay melokaan yu wuute te boo dee xool aadama ci suuf si nu ko bindee façon suuf yi ñu dajale bind ko façon suuf yooyu ñu dajale bind ci maam aadama moo tax façon der yi wuute mais amul benn nit bu gën benn nit te du da koo gën a ragal yàlla amul ak ku mën a doon ki la gën a maanaam ki la gën a ragal yàlla rek kooku moo la gën léegi kay ñun li ñu war a wax mooy uh-huh. moom mi mi nga xam ni moo jiite boobu dëkk di doxalin woowu doxalin ñun ñi nga xamante maanaam ñi ñu jiite ñun ñoo war a am fulla ñoomi it ju toll ni dem récupérer ji doom ya ñu fa am te moom doom yi mu fi am ñu delloo ko ko parce que xam nga Sénégal dafa Sénégal maanaam daa amul kubéer mm-hmm. Sénégal laa gis réew moo xam ni fu la neex jaar dugg nga Pape boo dee génn waxuma sax dëkkuy sori de yenn frontières yi rek boo ci dee dem jugee Sénégal da ngay sonn na sonn man dem naa fi Gambie fàtte sama carte d'identité euh, ca kër ga mais keroog lu ne la paa jàmbu daj pour ma jéggi ci frontière bi pour ma dugg biir Sénégal biir Gambie te carte d'identité rek laa fàtte te xam nañ mbooloo la ñu xam nañu li ñuy doxi mais du du loolu du dara de mais fayda la fulla ji ñu am ba balaa nit a dugg seen réew mu nekk lu leer ñun Sénégal amuñu maanaam amuñu boobu doxalin moom am na ci droit ci ci ci comme moom moo jiite réew ma am na droit ni bugg fee gis nit ñu ñuul ñi mais ñun it nañ am fulla ju toll ni ni yeneen réew yi nga wax ni def dem jëli doom ya ñu fa am mais ñun lu tax mënuñu woon def loolu xam nga su fekkoon Sénégal def na loolu ñii du ñu faatu ci ndox mi. parce que bu boobaa dinañ leen teg ci condition yu baax indi leen. fii ci réew mi ñii jëm ci woon Sénégal ñii Espagne lañ doon <laughs> ñii bañ li leen maam gaal gi ñu jël pare pour dem Espagne es ce que yitte boobu bu ñu ko jëloon pare pour ñëw Sénégal. non man dama yaakaaroon ni ñoom dañ doon ñibbi si Sénégal. non non gaal lañ jël pour dugg Espagne. Ah. mais bu fekkee ne gaal gi ñu jël pour dugg Espagne fitna bi ñu leen teg Tunisie moo tax. waaw mais bu ñu xatee foofu. dañuy wuti wàllu rek fitna bi ñu moo tax ñu daw.